bismillah ci jàngoroy corona ji la tribune yéene kaay ne en tout cas Sénégal day waaw bloqué na lépp mbir mi daal dara dematul dara dikkatul laa la wax dama ne la gis nga jàngoroy chinois joojee waaw moom daal mooy buur di bum di bum el dicte sa ay laay la la dama ne la président Macky Sall kon daal dina tëj école yi day lu tolloog ñaar fukki fan ak benn ñëw tere na tamit lépp loo xam ne kon dafa xeetoo ak ay manifestation kon ca mbedd ma lu tolloog fanweeri fan ay laay la la daal dina ñuy niilal général ba amatul niilal nañu daaka ba amatul niilal nañu appelu laayeen ya amatul yéene kaa gi ne dama ne la am na ñaari kaa yu bees yoo xam ne kon amati na benn moodu moodu boo xam ne kon ca Espagne la jóge de ak benn xale boo xam ne na fukki at juróom rek allahu akbar Abdoulaye waaw daa fas yéene porte plainte képp koo xam ne nag maanaam yaa ngay wax te jàngoro jooje lu amul ay fake news le soleil yéene kaa ne Sénégal day waaw ñëpp daal dinañuy booloo nekk benn nag ci ginnaaw président Macky Sall maa la ko moom président ci ay dogal yoo xam ne kon président Macky Sall daal dina koy jël bu njëkk ba day waaw mooy école ak université yi leen tëj fii ak ñetti nag laa la wax ñaar lépp luy xeetoo ak wàllu manifestation kon ci mbedd mi lée daal dinañ koy tere ñett fas yéene katanal ñi nga xam ne dañuy liggéey kon te kër di personnel de santé ba waaw ñeent dakal nag lépp loo xam ne xeetoo naag wàllum aji lée aji màkka ji maa la ko wax ak yu nu roog moom ci 2020 bi lée ak nañ ko juróom daal dinañ nag aar contrôler si la jaww ji lée wala ne kay daal dinay takku nag ni ngi gis léeg si ko kaay ne ngir ne dakal tasaaroo bi nga xam ne kon coronavirus joojee mi ngi koy tasaaroo ci réew waaw te feebar bi kat fi nekk nii nag ñi ngi ci ñaar fukk ñeent ñoo xam ne kon mbir ma dal na leen moom président Macky Sall day waaw réew mi yëpp nañu kon te ginnaawam ngir plan de bi maa la ko wax moo xam église ba la Touba Tivaouane Yoff ñëpp daal dinañuy bootu nag ci ginnaaw président Air Sénégal tamit de eh, daal dinay dakal nag demam ngeen gi gilée eh, ca Barcelone a ca Casablanca ca Maroc waaw libération yéene kaay ne nees today ah musiba mbaaba kuma kon daal di nag ci Sénégal gi eh, mardi tali waaw waaw abom ba la kay ca aéroport ba daal lañ ne ko ci moom moodu moodu bi nga xam ni kon Air Sénégal la jël jógee Barcelone gëlée ne jëpp ci réew mi te bañ ko xoolee ndekete kon am na jàngoroy coronavirus gi lée te moom moodu moodu la parce que Abdoulaye nee na dana porter plainte nag gis nga ñoo ñee parce def du taxawaayu kilifa attitude bu irresponsable la maa waaw waaw parce que gis nga ca Guinée gee am na ñoo xam ne ca jamonoy Ebola ba noonee la ñu ba lu tolloog ñaari junni ak juróomi téeméer ak fanweer ak juróom benn deux mille am kon ca dëkk ba maa Papa Diop njiital bokk gis-gis ci évidence yéene kaay waaw waaw nee na ñun ñëpp nañ leen nekk ay soldaar ngir aar suñu réew mi la ci jàngoroy covid 19 ci la ko ti yéen e booloo nekk benn ba dee unité nationale ba ngir xeexa jàngoro ji waaw Macky Sall réew bu doon testé dañ naan dafa positif Macky kay gongo a jaaraama direct news ne wennu askan wenn bëgg-bëgg wennu xeex un peuple un but un combat dëgg la dama ne atu politique ba dee ak kilifa diine société civile ba ci sénégalais bi nga xam ni kon mi ngi nii sénégalais lam daa ñëpp ngi ci ginnaaw général Macky Sall tar tribune yéene kaay ne Bougane Gueye Dany dee média day waaw ña ngay gunge tamit gouvernement bi tey ci dogal yi nga xam ne kon jël nañ ngir xeex jàngoro chinois ji waaw parce que bépp boo xam ne kon fi mu nekk laal na feebar boobee soo ñëwee fii ci dee média gi lee dañ koy may gouvernement bi gouvernement bi du fay dara boobay benn ñaar Bougane Gueye Dany ak waa këram nee nañu génnee nañu juróomi million dimbalee ko gouvernement bi publicité bu gouvernement bi indi fii des médias ngir jàngoro ji du ñu fay dara bugaan ngay dani ne parce que lii du ay mbirum parti ak ay mbirum couleur mbirum Sénégal la ak sénégalais yi looloy dëgg réew mi quotidien ne xeex bi nga xam ne nag maanaam ñu ngi koy xeex jàngoro ji day ah aéroport international daal bi la jaañ waaw mooy catu Sénégal yi cat la cat la yëpp daal foofu la xeex ba daal foofee daal la sooxee lu tolloo juróomi kaa yoo xam ni na léegi nag ñaar fukk ak juróom benn ci ay sénégalais moo dominé guerre bi Sénégal la dominé guerre bi de yéen kaa gi ne ministre Moustapha Diop waaw moom tamit ma ngay jàppale waa Louga de ci xeexu gàngoroy chinois ji lay ay daay la la parce que ministre Moustapha Diop waaw waxuma la millions ya mu génnee de waaye gel hydroalcoolique ya lay désinfecté dëkk ba ba ci ay masque waa Louga yoo yee ci exclusive yéen waaw nee nañu ministre Moustapha Diop monsieur le taxaw laas gel yi nga xam ne kon nañu koy raxasoo ak di ko xeex a sam am lu leen miti lool moo taxit ministre bi tey du commerce waaw xam le na ne danañu jëlee ay daan lal ko ci ndodug ñi nga xam ne ñoo yokk njëg la yéene kaa ne musiba am na ca Cees de xale bu jigéen boo xam ne kon dafa ëmb de daal dinañ koy rey inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dem gi daal xel tey na grand place Khady Diouf lay wuyoo moom xale bii nga xam ne kon dañu koo rey dem naa ca football ba 24 heures yéene kaa ne waa Real ñëw Real Madrid yéene kaa gi ne waaye nag kenn du Cristiano Ronaldo de moom ma jël hôtelam yëpp daal di koy soppi ay hôpital termine yéene kaa ne xanaa xamoon ne gis nga jàngoroy coronavirus ki lée ah daal dinay dugg sax nag sport baax ar di taali compétition ak organisation sportive yëpp koy dakkal ba jëmi jamono combat Siteu ak Papa Sow ndax nañ ko ba jëmi jamono euro 2020 bi ba kanam ak ci xottu gerte en tout Sénégal de ñëpp ci ginnaaw Macky <laughs> waaye moom président ginnaawam ginnaawam nay fàttali rakk ji pétrole bi rek parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat tam dañ ko fiy tere boo paree mën a jërë ngeen jëf état d'urgence la yéene kay na ci xëtam mu njëkk ne fa la Sénégal toll li ko jur moo di covid 19 di jàngoro eh, li ko jur moo di covid 19 di jàngoroy coronavirus moo ko fi indi ndax léegi Sénégal mi ngi ci ñaar fukki ka ak ñeent ñaar fukk ak juróom benn la ñu woon ñu faj ñaar ya de la république Macky Sall jël na keroog ay ko ci réew réew dogal yi juróom la grand place tuddee ko cinq commandements de Macky ba ca njëkk mooy école yeeg université yi ci réew mi dañu leen di tëj ci diirub ñetti semaine tere nañu fit ay manifestation publique mu di xew-xew yuy dajale mbooloo mu bari ci réew mi ñetteel ba di aji màkk ak gi aj nañu ko ñeenteel ba di sàkku ñu gën a dooleel saytu geeg segg gi ci frontières yi muy ci jaww ji di ci géej gi di ci jéeri ji juróomeel ba di fajkat yi ci réew a dooleel ne ko gonga te noonee la demee ni muy kilifa diine yi di way politique yi ñoom ñëpp àndandoo nañu ànd ci dogal bi njiit réew mi jël ngir xeex ak mbas mi ci réew mi soleil national les échos vox populi xëy bokk nu ñu ko xibaare pexe yi Macky Sall teg ngir jëlee coronavirus bi ci réew mi waa réew mi yëpp nangul nañu ko ko ñu nangoo ci l'observateur mu xëy di ñu leeralal misir yooyee président Macky Sall jël ci yan anam la ko jëlee nan la def ba juboo yi ci réew mi fan la jaar moom Macky Sall ba wax ak kilifa diine yi ci réew mi ba wax leen lu ñu mën a dégg lépp l'observateur xëy nañu ko yeggee source waa xëy mel ko waaw góor président de la république nii lay mel Sud Quotidien nañu suñum réew di Sénégal yeewu na xippi ay gëtam jaaju teg ci fas yéene xeex ak coronavirus bi lëmbi àdduna bi président de la république tere na ay ndaje yu mag ci réew mi moo waral daaka bay am ci Médina Gounass at mu nekk ziara général ba ñuy def ci Tiwaawan at mu nekk ak wooteb Seydina Limaamu Laay almahdi bi ñuy def at mu nekk xew-xew bu ci nekk seeni borom jël nañu dogalub annulé ko Sud Quotidien nañu màggalu Kazu Rajab gi annulé wuñu waaye jël nañu ci ay matuwaay ak dogal dogal bi mooy tere mbooloo mu dajaloo sàkku nañu njàngum alxuraanul karim jàngi xësida boole ko ñaan ngir jàngoro ju dugg ci réew mi génn fi nu ma gën a gaawee jàngu bi ci réew mi it sa mu di église bi journal bi mi ngi ñuy xamal ne jël nañu dogalub aj seeni yëngu-yëngu bu nuppi digle ay ñaan ministre des sports di Matar Ba aj na bépp yëngu-yëngu bu laale ci wàllu tàggat yaram ministre de la justice di maître Malick Sall santaane ñu dakkal audience ci tribunal yi la tribune ñu fi ñu nekk bi mooy dicté loi am ministre de la santé di ci xët la ñu nekk guerre bu rëy suñu diggante coronavirus bi moom Abdoulaye Diouf Sarr l'observateur mi ngi ñuy xamal ne mi ngi dànkaafu ñi nekk ci réseaux sociaux yi di fa joxe ay xibaar yu amul di wër di wax naan coronavirus amul Sénégal nee na loolee yàq la ak di xajamal xeex bi ñuy xeex ak jàngoro ji ba tax na danañu porter plainte ñi koy def ca kanamu procureur de la république source waa nañu ñooñee taxaw naan coronavirus bi amul Sénégal ak di soofantal liggéey bi nga xam ne Abdoulaye Diouf Sarr koy def bi coronavirus bi feeñee ak léegi ñiy def loolee li ñuy def wute wut ak yore sawara ci jamonoy Ebola bi di wër di gëmloo nit ñi naan Ebola amul ci réew ma ba Ebola ba fat fa ñaari junni doomi aadama ak genn wàll suur soit nañu weddi gi ñenn ñi di weddi ne coronavirus bi am na ci réew mi bu ñu ko bay bayalee foofee fa la ñu dem ci libération fekki fa la journal bi tuddee bombe ambulante mu di bërki démb benn waay dib sénégalais bu jóge woon ca Barcelone ga ca Espagne dugg ci Air bi muy ñëw xamoon na ne dafa corona libe na ko testé maanaam ber leen l'observateur nañu xeex bi des na ndax ñoo ngi wax ne ca Louga am réew jël yoonu suuf yi di dugg si ci réew mi réew mi coronavirus beeg demee vox populi xëy na dañuy defal bilan beeg tolluwaay bi bi coronavirus bi duggee ci réew mi ak léegi ñaar fukki nit ak benn ñoo ko fi amee ñaar ña faj nañu leen ba ñu wér mu des ñaar fukk ak ñeent ci ñaar fukk yeeg ñeent yooyee am na ci benn parental bu toll ci ñaari at ak jenn jigéen ju wérul vox populi nañu moodu moodu bi dugal coronavirus bi ca Touba wax na mi ngi xam ne kersa gu mu amee jamono ji ci dugal gi mu fi dugal jàngoro ji Mariam Ndiaye asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm feebaru coronavirus am na ci lu tolloog ñaar fukki nit ak juróom-benn yu ko am fii ci biir réew mi ñaar ñi daal dinañuy wér ba ñibbiwaat seen i kër kon lu laam-laamee jëmale ko ci wàllu feebar boobu ngir bañ nag mu law loolu nag moom moo tax ba njiitu réew mi daal di jël ay matuwaay tey jiw culikaay bii di su ko di jeex mag ñu koy limal di ñu xamal nag ne mën nañ ci ràññee tere gi ñu tere nag bépp xew-xew goo xam ne ñoo ngi koy amal tamit daal di boole ay nit daal dinañ yeeg université yi bateau yoo xam ne dafay def ay touriste jóge ca bitim réew ñëw dugg nag euh, fii ci mim réew njiitu réew mi yemul foofu ndaxte jolikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne it dina a taral nag lépp luy saytu goo euh, bi wala di laas ni état d'urgence moom la suñu réew bi daal di nekk jolikaay bi di waa grand place euh, ne njiitu réew mi kon daal di ne jël juróomi mesure ngir xeex ci ni mu waree feebar bii nga xam ne nag moom mooy coronavirus ci ci xeex boobu dafa mel ni ne askanu réewum Sénégal yëpp ànd nañ ci ak njiitu réew mi loolu sax la ëccoolikaay bii di le soleil daal di fësal ci xëtam bu njëkk ëccoolikaay bii di direct news maa ngi ko ciy feelu ndaxte daal nañuy fësal ne askanu réewum Sénégal yëpp benn jëmukaay la ñu am moom mooy xeex ci ni mu waree nag li nga xam ne moom mooy feebaru coronavirus bi ci wàll gi ni mel sax ëccoolikaay bi di les échos di ci yokk di ñu xamal ne ñi nekk ci lànguk politique bi ñu ràññee ci ku ci mel ni Idrissa Seck Abdoul Mbaye Lamine ak tamit Pape Diop ñoom ñi ñoom ñëpp ànd nañu nag ci dogal yooyu nga xam ne moom la njiitu réew jël autolikaay bi di l'évidence di ñuy jottali ay kàddu Pape Diop bu bokk gis-gis moom di xam leen ne askanu réewum Sénégal yëpp war a nekk ay soldat ñu ñëpp ñu taxaw temm nag sàmm suñu réew fexe nag ba feebar bi di coronavirus daal di fi jógee ba léegi ci xeex boobu nga xam ne nag njiitu réew mi daal dina koy sumb jëmale ko nag ci lii di coronavirus bi ñu ngi ñuy xamal yi ñoom nag yéenekaay bii di 24 mi ngi ñuy xamal ne joriñ gi ñu dénk wàllu biir réew mi di Aly Ngouille njaay moom nag daal dinay yónni ñi nga xam ne ñoom ñooy takk der yi ngir ñu dugg ci boîte de nuit yi ak baar yi génne ña fa nekk li ni mel moom moo am ci lu ay bés bi waaye na maar ñoom tamit di rafetlu mesure yooyu nga xam ne moom la njiitu réew mi daal di jël wante ñoom ñaan nag njiitu réew mi ngir mu daal di dakkal dem ak dikk bi ci wàllu jaww ji ndax teew ci bi ne kenn ci ñaar ñu bees ñi nga xam ne nag ñoom ñoo mujjee am euh, feebar bi kenn ki nag moom de fële ca Barcelone la jógee moom ba mu yegg see sax ca aéroport international Blaise Diagne foofu nag la ñu daal di gisee ne dafa am feebar boobu culikaay bi di libération du ñu xamal ne sénégalais boobu jógee ca Barcelone moom de ba mu fay jógee dafa feebaroon ba mu yegg see nag fii ci biir Dakar nag ba ñu ko xoolee li ñettu ko ci la ñu daal di gis ne moom am na feebar boobu loolu sax moom moo tax euh, ba équipage ba ñoom ñëpp daal dañu leen a ber mettre leen en quarantaine ngir saytu seen yaram wante ci xeex boobu nga xam ne rek ñoo ngi koy xeex jëmale ko ci feebar bii di ko julikaay bii di Tribune mu ngi ñuy xamal ne am nañu ci profito nag di fësal yenn ci ay xibaar yoo xam ne dara nekku ci dëgg loolu sax moo tax ba jooni ku ñu dénk wàllu wér-gi-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr di xam ne nag ne dina am ab boo xam ne dinañu ko jébal procureur de la République ngir képp koo xam ne nag da def naka su dul noonu ak xibaar yi wala boog ngay fësal ay xibaar yoo xam ne dara nekku ci dëgg yoon war a mun a tegu ci sa kaw ñi nga xam ne nag tey jii am nañu euh, feebar bi ak ñi nga xam ne dañu leen a tëcc ngir liñatu lépp lu jublu ci seen wàllu wér-gi-yaram docteur Khoudia Sow nekk médecin socio anthropologue moom nag moom mooy xamal njiitu réew mi ne faw nag mu bàyyi leen xel bu baax a baax moom moo nekkoon ganub émission bi di objection fii ci biir radio Sud FM daal dinay ñëwaat nag ci nit ñi nga xam ne am nañu feebar bi ma ñu toog di leen faj ak ñeneen ñi nga xam ne dañu leen di laam-laame ne dañu ko amam déet ñooñu nak war nañu leen gunge war nañu leen taxawoo ci ni mu waree loolu la docteur Khoudia Sow daal di fësal mu yokk nag di xamle ne ci mesure yi nga xam ne moom la njiitu réew mi daal ko ci ñuy xeex jëmale ko ci coronavirus moom daal dina koy euh, rafetlu te it mu ngi la santé di doxalee jëmale ko nag ci euh, wàllu feebar bi di coronavirus nekk na lu mucc ayib ñu daal di jukki ci wàllu tàggat yaram ndaxte feebar bi di coronavirus am na tamit ay gàllankoor yu mu indi ci wàllu tàggat yaram ndaxte ci àddina bi yëpp fu mu nekk nii la ñu tal moom mooy xeex feebar boobu wanteew colikaay bi di stade mu ngi ñuy xamal ne terewul nag ñi di waa Real ñoom bëgg nañu nag fexe ba kii di Sadio Mané daal ñëw ci seeni wet loolu sama moo tax ah, ba am na koppar gu takku goo xam ne nag toll na ci cent quatre milliards bëgg kaa jox waa Liverpool ngir fexe ba Sadio dal di ñëw ci ñoom suñu naataangoo yu suñu kayit di stade gis nag ne Sadio moom mënul def leneen lu dul nangu ndaxte ak waa Liverpool Sadio gañe na lu nekk léegi nag la ko dese kay moom mooy daal di xool feneen ba léegi ci wàllu feebar bi di Covid 19 ojolikaay bii di sunu lam mu ngi ñu xamal ne daal dinay indi tamit ay gàllankoor ci wàllu euh, làmb ndaxte combat bi ñu doon xaar euh, ci diggante Papa Sow ak Siteu daal nañu koy dàq euh, ba keroog ñuy pare nag ci li nga xam ne daal moom moo jublu ci coronavirus lii moo nekkoon bëgg ci lukat yi li gën a fës ci biir ci lukat yi ñu leen di a njeex ci lu bës ak